kàddu yi nga xamante ni sëriñ As Barxam borom li lijaaba borom yàllaay kase daal na koy yëkkati ci matt Sénégal contre Guinée bi nar a am niki tey bu 17h jotee ñu bëri comprendre uñ kàddu yooyee looloo waral ma ñëw fii ngir expliquer leen ko benn par benn fii ci Allo Dakar ndax sëriñ As kàddu yu bëri yu muy yëkkati bu deful ay révélation dina wax wax boo xamante ne dina dox ba jëmmi jamono ñu gis ko daaw daf ne woon incha allahu rabbi coupe bi dina ñëw nit ñi gis kub bi ginnaaw yàlla moom bay na si waaram boo xamante ne lépp daf ko doon def te yàlla tax nit nag bu ko suñu boroom mayee dara da nga ko koy nagul jamono bi suñu boroom may na ko xam-xam boo xam ne bu waxee dara suñu boroom daf koy daal di dogal ci saas ya moom nag puukareewu ko walla nameewu ko lenn rek la koy def muy sant yàlla lépp loo wax mu ne ci alquraanul karim laa koy teg aada ak sunna matti Sénégal Guinée bi bañ ko laajee sëñ As lan la wax mais nañ aññeeku tuuti ci match bi njëkk muy match contre Gambie li ma waxoon gis nañ ko match contre Cameroun li ma waxoon gis na ko waaye sëriñ As dafa ti kàddu yu am solo moom moo di match yëpp. gisu Sénégal tant que Sénégal demul ba quart de finale demi finale ci lay commencé di wax victoire ndax Sénégal séntu na ko fu sore sore sore gis nañ nag ku nekk di montage gis nañ ku nekk di yëkkati ay kàddu naan Serigne As ma wax li mais Serigne As lenn rek la wax moom la di incha allahu rabbi bés bu ñu génnee ci match de poule yi boobu la Serigne As di génn match par match di ci wax score par score di ci wax te lépp lu mu wax incha allah dina génn sarax yi nga xamante ne moom la match boobee di laaj ku ci nekk équipe national na ko def mbiru boppam bu ne mbiru kii la wala mbiru kee la ñun ñëpp Sénégal ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu koo xarñaar ñaar Sénégal bu amee ndam nekkul séeréer bi wala joolaa bi moo am ndam mais ñu Sénégal yëpp ñoo am ndam kon nañu bàyyi xeex yi ñuy xeex suñu biir ak reyante yi ak wax yu bon yi ak jëfante yu ñaaw yi tey jël équipe nationale bu Sénégal téye ko suñu loxo fii alors Dakar la ñu doon yëkkatee kàddu yi di ay kàddu leeral yoo xamante ne jëm ci mbirum match Sénégal contre Cameroun lépp lu jëpp ci kàddu ngeen xam ne ci ndimbalu suñu borom na lépp lu fi dëng ngeen xam ne ñun jaam yi ñoomatul di leen jégalu bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon wala sax ba mat Sénégal yii di ñëwaat jàngeen jëf